على استغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن سكرت لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما خني salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mbokk yi ñoo ngi leen nuyuwaat baax di leen ziara na ngi fii ci màggalu Babar Sàq yi ci njaareem ñu ngi ci Thiès nga xam ne sëñ Cheikh Bara Diakhaté dañ ko daan àndi ak yéen at mu jot di ko fekk fii ci barab bi muy dundal bis bi ni nga xamee ne noonu la ko kilifa yëpp di dundale di jàng alxuraan jàng xasida ak bernde xam naa dañ koy jox rek barkeelu ci kàddu yi nga xam ne daan nañu ko baaxee ci bis bi ak mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon fii ñu fàttali ne sëñ Cheikh Bara Diakhaté moom soxna Daba moom sëñ Moustapha sëñ bi kon bismillah euh, auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu yéen bokki taalibe yi bokki jullit ñi déglu ji ñu seetaan ñu ngi nuyu sëriñ Tuubaa Cheikh Mountakha Mbacké lu koy ñaanal ko fi yàlla yàggal ci barke Maam Borom Tuubaa ñoo ngi fii tey ci biir kër gu mag di pàkk benn ci yenn pàkk sëriñ Tuubaa ñu feggoog sëriñ Baara Jaxate moom soxna Daba moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké moom Cheikh Ahmadou Bamba bis bi tolloog tey ñaar fukki fan bu ma juumut ci rakaat bis bi nga xam ne tey jii mooy weeru wolof ñuy fàttali ko yenn ci magi sëñ Tuubaa yooyu nga xam ñoo nekkoon fii sëñ Tuubaa yoroon leen fii ci kër gi dëkkoo leen bis bi nag ban xëyee jàng nañ kaamil alxuraan ay lim yu bëree bëri bëri bis bi nag ñu ngi koy dundal ci xasida ak waxtaane sëñ Tuubaa ak bëgg a xam jaar-jaar yi mag ñi niñ fi liggéeyoon kon yéen ñi nga xam ne yéenay waa télé bi di liggéeyal Serigne Touba ñoo ngi ñaan ci barke borom Touba yan yéen a defal jàmm yi àdduna ak àllaaxira lépp lu ci sàkk yan yéen ko yàlla defal fii nag ku fi ñëw loo fi sàkk Serigne Touba defal la ko ndax fii la Serigne Touba sax ak juróom fii la maamam Serigne Modou Touba jëlee Serigne Touba yóbbu ko Touba xam damu Touba piim ko bañ demee Serigne di koy laaj bis sëñ Saliou jox leen ci ndigal Alaaji Abdou Diop Baye Moustapha Bamba yal na yàlla yokk leeram mag ñooñu ne bis boobee day man sëñ Saliou maa ciy jëkk ñu ngi ko sosoon ci weer yi di fukk fan ak juróom tolloon ci rakaat gàmm bis boobee nag mooy wii ba na ngeen si ba tey ji ñu koy taxawee kon yéen ñi nga xam ne yéen a fi ñëw yal na yàlla defal jàmm ci barke Borom Tuubaa kàddu yi mi ngi jóge sëñ Bara Jaxate feggoo bokk taaliba yëpp yi fi teew baal di max baal naa ñëpp ak jërëjëf alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala nabi rahma mixlaaxi baabi nixmati sababi kulli nasam wa ala alihi wa sahabatihi sabi ridwaani wa tamkin bokk yi fu ngeen di man di toll ci àdduna bi du seetaan ñoo ngi leen di nuyu ci asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu e, ci turu sunu kilifa yi nga xam ne ñu ngi bawoo sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké di fi sëriñ Touba tey tax fu ab jotaay nekkee ci keppaaru yoonu murit mooy si kilifa waaye ñu nekk fii nag ci biir kër Soxna Daba Mbakke fi mu féete woon ci biir kër Sëñ Tuubaa ci diwaanu Jurbel ni ko Seydina Jam waxee léegi eh, di ndokkeel sëriñ eh, Amsatu Mbakke eh, ak sëriñ Baara Jaxate mi nga xam ne mënuñ feggool ah yéen waa Mafatihul Bichri nag TV ngeen ñëw fi ngir yaatal lu baax te bokk ci sart yi Sëñ Tuubaa waxoon ne ku wut loo xam na ko ci tënk bokk na ci boobee yàlla yàlla taxawu leen bis bii nag. ni ko suñ baar waxee léegi rek ci biir bis la boo xam ne dañuy wax ne mooy bisu ahlul barsaq eh, bari waa na kàddu gi fu mu àgg buñ ne nit dana barsaq dañuy jàpp nañ ko faa yóbbu waaye barsaq màggal gii nag tey mooy nit ñi dañ fa ñëw seen sago ana lu ko waral mooy Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moom la ñu dabu si fii tey eh, nga xam ne fu nekk nit jóge na fa mbaax indi fii ci moom mu jox la gën fu nekk nit jóge na fekk fii mu defal la gën ba tey jii la ma waxoon ne abraar yi ko dëkkee ñoo fi dëkk tey daa waxoon ne maa ngi jaayante ak borom bi tabaraka taala ci ron xay gi booba ci garab gi ci biir kër gi ñàkku dangeen fa dem wala dem ngeen fa demati fa eh, waaye jamono boobu nag suuf si mi ngi teey lool neex a jaamoo yàlla lool waaye ñi ko wër ñëpp dañu baax abraari cheikhul xadim yooyu nag yàlla ko ko doon na la rafaatale ko ko abraari yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moo nekkoon jëwriñam xam ngeen ne sañ tubaa moo bind wax ne leer na ci bopp képp koo xam ne am nga xel tey xalaat ci ne yun salaa salaam képp moo tim ndabam moo xam ne ci ne moo tax mu jox ko muy wasilaam waxaat ne képp koo xam ne leer na sa bopp te am nga am xel tey xalaat xam nga ne man sëñ Touba kéemtaan laa ci kéemtaani borom bi loolu nag feeñ na ci jataay bi tey ndax yont bi salaa salaam bi mu demee ñoñam alxuraan dafa tere képp ku yonent bi yoroon ku leen yore ginnaaw loolee nag la yàlla dimbalee sëñ Tuubaa bam ni nga ko doon ne doon ko mu rafaatale ko ko mu ahlu barsàq ndax bi sëñ bi demee ci aalamul xay bi nga xam ne gis nañ ko ci zahir ñoom dañoo gis ne ki ñu àndaloon te yàlla rek tax nga xam ne dara àdduna amutoon ci moom foofa lañ teg seen bët fa lañ teg seen tànk ñu barsàq ba koo ci mës a séen doo doo xàmmee jigéen la wala góor la da ngay jàpp ne góor guy dem la ndax wan guñ wan ginnaaw àdduna roye ko ci seen jëwriñ ñi àndaloon liggéey bi yàlla bi ndax suñ tubaab moo ne adduna dafa daw dëgmal si moon ko ginnaaw jaay ko ba mucc ci lépp loo xam ne moom la adduna indi ak lu mu indaale loolu da ko yaxal dañuy gàttal ngir bañ a guddal ndax li wax ñi xam aay ak ab yaat nañ ko loolu moo tax ahlu barsax yooyu nag nga xam ne ñoom fii di leen fàttaliku ci ñaan yey na jaadu na dagan na ndax lan suñ tubaab moo wax ne ñaana aji dem dana ko jëriñ ci bàmmeel waaye tamit dana bijj tuyaaba ñeel ki ko taxaw doon ñaan kon sëñ Baara ñaan gi ngeen taxawul ahlu barsàq yàlla na yàlla jotale ko ci ñoom te yàlla delloo leen tax tuyaabay taxaw ñaan gi ñoom nag sëñ Touba ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi la amee li mu am waaye jëmmi sëñ Touba ci boppam nag ci keppaaram yàlla defal na ko loo xamante ne sëñ yonent bi amu ko woon ci ñoñam mooy alquran wax na mel ni ku yedd ñooñ yonent bi ne yow mi nga xam yéen ñi nga xam ne yéenay soxna yi wër yonent bi sallallahu alayhi ànd ak moom ci yitte jaamu yàlla bu fekkente ne da ngeen a tànn yàlla ak yonentaam tànn leen yàlla ak yonentaam bu fekkee da ngeen tànn adduna ko taaram ngeen tànn adduna ko taaram ñu jox ko te ngeen ba ko loolu yaddaanga la ci ñoom ndax nit mënut a ñàkk kee lu muy soxlaw ci néegam ak yeneen yeneen ñu doon ko laaj yonent salaa salaam sëñ Tuubaa nag ñoom dalu dalu leen ci moom donte li am na ci barke yonent bi la ko amee moo tax ñu won aduna ginnaaw bañ tuddi leen ñoom tuddiwuñ seen bopp waa barsàq mm-hmm. waaye nit ñi doon gis ñoo leen tuddi ahlul ndax melokaan yu meloon kenn xamul melokaanu lu doon mooy ko bay adduna rek nit ñi ñoo leen tudd barsax amoon nañu itte ju toll nañ ci yàlla kenn mëstam yitte dox koy dong dañuy dajale seen yitte ba mat yitte ju bari ñu àndandoo dem wuti ko dikkaat ku mas a am lenn tamit di ko wut da ngay fexe ba wutal ko ña nga nekkandool loolu mooy bokkoo ci yàlla am yitte jëm ci yàlla waaye jaare ko Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moom lañ fekk soon ci barab bi tey kon ngir bañ a guddal dañuy wax rek ne bis la bu am solo boo xam ne ñi fi teew gis ngeen melokaan yi Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ne moo ko yor moom suñu baara jaxate moo wane woon naka la ñu màggale naka la ñu fàttalikoo ñaan jàng alxuraan jagleel leen ko jàng xaside salaatu ala nabi zikru ak ñu ca man teg ca bernde loolu nit moo ko soxlaw waaye bokk na ci jotaay yii nag ak yii ñu am war a xalsal am ci ñun ci kanam moo ñu dundal ci ruuy ñu yóbbaale ko ndax nit bu fi bàyyi ko jëmmam mooy des waaye room de dem ilal malu ala ñoom nag ngir yàlla taas seen barke am nañ ci yaakaar ndax yàlla moo wax ci alxuraan ne képp koo xamante ne topp nga tànki wajur yi wala tànki maam yi ci mbaax a njekk sa jëf joojee la muy mujj mujj ñëw la muy tuuti tuuti ngir sa jëmm danañ ko yéegal te sa jëf jëfi maam te ñoom ñi ay maam lañ ci diine nag ci pas-pas ci namm-namm jëm ci yàlla tabaraka taala yàlla na yàlla taas seen barke di sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan di leen gërëm di ñaan yàlla daje bi ñu daje at yu bare bare bare yàgg leen taxawu sëñ Baara mi yàlla yàggal ko fi maa ngi koy wax léegi sëñ bi ci biir ma ne ko nañ ñëpp ñaanal ko ndax fi ko sëñ saali bay woon ma nga fa wax na ma bu yàggut na ma eh, ni ñu yëm ci man sëñ Saliou moo doon mooy foofu na mu jàngal ko xasida ndigalul sëñ Saliou kon nag ndokk yàlla bu la ko yàlla wàcce yàlla nga àgg ne aw yoon yàlla bu la daa dogale yàlla bu la daa dab ndax ñaari kat ñaan gu wax ci koy dox salaamualeykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf oustaz jërëjëf sëñ Sidina tubaarkàlla kàddu yi jot na mën na sëkk ñu ngi ñaan yàlla daje fi at yu bëree bëree bëree yàgg fee fekk sëriñ bi lépp lu ñu def bis bi suñ borom nangul na ko jotale ci suñ maam yi tëdd yooyee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu